suñu dundal weeru koor tey ñoo ngi ci indi dundu kenn ci njabootu Serigne Touba gi muy Cheikh Souhaïbou Mbacké radiyallahu taala anhu nga xam ne moom mooy borom weeru koor Serigne Souhaïbou kenn la ci njabootu Serigne bi eh, gan ganese woon àdduna bis ni juróom juróomi fan ci weeru Ramadan atum ama halshashin ci njaarem junni ak ñetti téeméer ak fan weer juróom ci gàddaayu Yonent bi tolla woon ak vendredi 17 juin 1917 bis bi mu ganesee àdduna Serigne Touba dane na ko woor ba jant so euh, moom nag buñ demee sax ci way juróom bu jigéen di soxna Mariama Jaxate dafa doonoon jàmbaari Serigne tubaa ndax moom mook soxna Aminata Lo way juru Cheikh Moustapha ak Cheikh Mamadou Amin dañoo addiyal sëriñ Touba seenuk dund la ci des ndax kenn ku ci nekk waxtu wa nga dem sëriñ bi nga wuutu ca loola moo tax bi mu demee sëriñ bi dane nañ ko yóbbu ca Aminata ndax ñoo bokki mbir ñoo bokk ñuñ fi bàyyi ak nuñ leen fi bàyyee euh, moom nag ku teeloo a mokkal alxuraan la daan jàngale di yare moom soxna a Jaxate doonoon jàmbaar lool waaye mook sëriñ Soy bu yàgguñu fi at weer ak fukki fan ak tuuti lañ fi def mu dem sëriñ bi daal di euh, woo soxna Xari Mbar waajuru sëriñ Abdou Samad nekk ko yow sa borom ne naa la jox nga àggale nàmpaloog sony bu euh, sëriñ sony bu am njàngum alxuraanam ëppul ñaari at yàlla da ko defaloon am xel waaye nag sëriñ fàllum sëriñ sony bu nee na mas na koo laaj ne ndax xam nga dara ci fàttaliku nga dara ci soxna Mariama Jaxate mu ne ko fàttaliku ma dara ci jëmmam de ndax booba damay ndaw waaye ñam daan jàngal alxuraan daal ciy tudd ñeenat muy ay gone yu jigéen daana lam leen daan jàngal de am na saar wu ma ca mokkaloon mu ne ko saar la mu ne ko xalateeg hadisul xaashiya ci koo xam ne dañ naan ci at la toll ak nangam xam nga loolu buñ la waxee ne am njàngum alxuraanam gaaw na eh, dana yomba dégg sëriñ Moustapha moom sëriñ Saalix nee na sëriñ Saalix benn bis la sëriñ Tuubaa nekk ak moom daal di sotti ko ci kawam ndax dafa woo sëriñ Amsatu gannaaw ba mu ko ko joxee eh, ba mokkal mm, sëriñ bi daal di koy woo bi mu ko wooyee daal di nekk sëriñ soxna bu fajar ba tisbaar nga xam ñoom ñaar rek ñoo nekk ci kër ga sëriñ soxna bu nag bis boobu day nettali ne cawarte gi ci sëñ bu amoon nag ak ak ak dugg ba génn ba nga xam ne léeg sax day ñukk ndax ndax sawar nee na dugg nañ ci néeg boo xam ne ne ak gaal a fa nekk gu def ay téere gaal gu diis sëriñ bi ne ko fabal gaal gi ñu dem sëriñ soxna bu nee na bi mu yëkkatee gaal gi attu na ko ndax diis sëriñ bi bi mu doxee déggut ab yëngoom mu daal di taxaw moom yàgg mu daal di wëlbati jëmmu jépp ndax moom daawul geesu dal ne soxna bu xanaa da ngaa waxul bisimilah neel bisimilah looy defate del wax bisimilah nee na bi mu nee bisimilah gaal ga dafa woyof ci moom mel ni aw xob bis boobu sëriñ bi tàngaral na ko fa ataaya joo xam ne nii sëriñ baa def lépp moo defal boppam lépp. nee na toog na ak sëriñ bi ci bis booba sëriñ bi ne ko jublul xibla foo toogate del jublu xibla waaye nee na gannaaw sëriñ bi dafa jublu xibla moom it bu jublaa bu jubloo xibla du du gis sëriñ bi te boobu da koo nammoon ndax lu ëpp at gisante wuñu bëgg a xool jëmm ji nee na mu daal di jublu xibla ba ba muy wëlbati di jàkkaarloo ak sëriñ bi ngir di ko xool di xool aw yaramam ak ak namm gum ko namme ak yooyu nee na ba muy eh, moyaat xibla nee na tëyu ko sëriñ bi daal di koy gëddaat ne ko soxe bu xanaa néew ma la foo toogatee dal jublu xibla nee na nag. ca la jógee nag booba ba ni mu fi jógee mës ta toog te jubluwul xibla nee na am na ci sax ay jafe-jafe ci 1945 bi fi seex Cheikh Moustapha di doo ko jógee te borom ndar woo woon doomi Sëñ Tuubaa yëpp nga xam ne nii dafa def ay bank bank bu ne mu bind ci turu kenn ci doomi Sëñ Tuubaa yi nee na amoon na ci jaaxala ndax nee na bu ñu àggee ci fa ñuy toog kat bank bañ may wutal bu jubluwut xibla danaa am jafe-jafe ndax bu bu ko jubluwut it man mënumaa toog te jubluwuma xibla ndax xalaatuma mooy ndigulul Sëñ Tuubaa far yàlla defal ko tawféex fa ñu bind aw turam bang bu féetee nga xam ne bu ci toogee xibla lay jublu loolu lépp euh, fonk ndigalul sëñ Tuubaa ak jëfee ndigal bam naa ne ci ataaya ja noppi sëriñ bi daal di woo sëriñ Amsatu Jaxate euh, sëñ sooy bu nee na am Amsatu Jaxate nag moom rek la xamoon ci kilifa nee na ni mu fonke woon ci col ak mbaxana yim daan sol waaye nee na bi mu dugg see ci kees gi sëriñ bi nekk mu gis kaala gam daan kaala woo mu takk ko ci ndigg li eh, sol ab turki rek nee na bi mu duggee ci kees gi itam dafa daal di sukk tàmbalee bi mu àggee ci sëñ bi itam dafa sëgg ba ab sikki moom di laal ay tànkam nee na sëriñ bi ne ko soxna bu ndax xam nga lu tax ma tàngalal la eh, ataay ji nee na may bëgg a tontu sëñ Amsatu dal may tontul ngir bañ ma tontu tontul gone tontu lu gàtt daal ne ko ah moom de xool na xool waaye daal nee na xamul lu tax nga tàngalal ko ko sëriñ bi ne ko li tax ma tàngalal la ko bëgg nga am taraanga te sawar tey jàng jàngale kon moom njàng njàngale mi mu daan def di jàngale alxuraan sëriñ Tuubaa moo ko ko digal ngir mu wuutu ko ci waaye tamit mu wuutu ci yonent bi ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo wax ne innama bu'istu mu'alliman dañ maa yónni ngir may jàngale ma doon ab sëriñ daara ba noppi wax ne xayrukum man ta'allama a wa 'allamahu ñi gën ci yéen mooy ñi jàng alxuraan ba noppi di ko jàngale kon moom sëriñ bi defalaat na ko fa euh, suñu borom defalaat na ko fa ak jagle def ko defal ko foofu xayriya boo xam ne gannaaw bu ko boolee ci njabootu sëriñ Touba sëriñ Touba yi daana wax ne man de gémmiñ jàpp na ma ñu ne ku lu mu la jàppee mu ne li ma bëggoon kat mooy toog Touba di jàngale alxuraan waaye loolu suñu borom fay na ko ci sëriñ Souhaïbou waa kër sëriñ Touba yëpp tam nanguloon nañ ko loolu ba tax na ku ko masaana soxla donte yaa ko mag sax yaa koy fekk si. te boo ko fekkee ci bu liggéeyam it doo ko dagg sëriñ Abdou Lahad ñëw na fa ba mu ñëwee ñu ne ko sëriñ baa nga fa muy jàngalee waaye dafa wàññeeku daal nañ ko bàyyi mu liggéey ab liggéeyam jàngale rek la fi nekk woon ak yare ak yare ci istiqaama maanaam sax ci ak njub sëriñ Fallum sëriñ Soxna bu jëlee naa ci moom mu ne am na lu mu ko mas a defal ne ko waaye nag danga may weexal nee na may xalaat xaalis fu may jëlee xaalis bu ma ko weexale mu ne ma ndax doo ma laaj loo may weexale nee na ma laaj ko mu ne ma xanaa nga am istiqaama maanaam nga sax ci ak njub daal ne ko man de mas na maa laaj sëñ Basiiru ne ko waa yéen njabootu sëñ Tuubaa gi nga xam ne nii yéen eh, ay mag ngeen moo leen yar dangeen daan jëflanteeg moom mu leen di digal ngeen di def mu leen di tere ngeen bàyyi waaw lu mu leen daan wax nag sëñ Basiiru ne ko amut leen lu ñu daan wax di ko ber lu wuuteeg la mu daan wax ci palanteeram ba di ko boole ñëpp daaw ñu bindal di ñu jox wala mu ñuy takkal dara la lañu daan lam ñu daan wax laa daan wax ñëpp te mooy sax ci istixaama sax ci ak njub moo tax ñoom ñoom ñëpp tamit foofu lañu nekkoon sëriñ Soy bu ku fonkoon xam-xam la lool bind na ay téere yu bari yoo xam ne ci wàllu fiq eh, ak ci wàllu tasawuf bind na ci lu bari rawatina téere bu ñuy wax buxiyatil muridin aw xunyatil mustarfidin bind na xuratul ayn nga xam ne ci wolof sax la ko bind muy téere fiq bu yaatu def na usulu tasawuf ak téere yu baree bare ajjuma jim fi ganee si woon àdduna itam yàlla defal ko tawféex ci ajjuma la fi jógewaat ci weeru koor muy fukk fan ak juróom-ñeent ci weeru koor 1991 di bisub laylatu xadar di bis bi gën ci bis yi doon bisub alquran te it julli na fajar àggale wirdul ma aquusam ba def lépp doog a wàcc kon kooku am na ngërëmul Sëriñ Tuubaa am na ngërëmul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na ngërëmul suñu borom tabaaraka wa la waaye am na ngërëmal mboolem njabootu sëriñ Tuubaa gi ndax li ëpp ci seenu njaboot ñoom ñëpp mu ñuy seeni doom ak seeni taalib moom lañ ci doyloo woon yóbbu ko fa moo leen jàngal alquran ñoom ñëpp def ci ñoom li nekk ci ñoom muy ab yar ak teggin ak istixaama kon yàlla na ko suñu borom fayal te taas ñu ci barkeem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 in uridu illa al islaaha mastata'tu ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala